Allah, Allah, Allah, ya Allah ya ibur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah ya ibur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah ya ibur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah mumayren dam. Tabat seni sahrada seni gam. بطاعة مولاك تبادر تأمرهم بالخير الوافر بما تسالكهم في جنتك الأجمل تحيا في طاعة مولاك تبادر تأمرهم بالخير الوافر حين تسارقهم وتحاور في جنتك الأجمل في طاعة مولاك تبادر تأمرهم بالخير الوافر حين تزاركهم وتهاور الله الله الله الله الله الله الله يا يا لا يا يبور Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah yow yàlla yaay buum gëmal sa borom gëmal sa yoneen gëmal sa fonkal say waajur fonkal say waajur fonkal say waliñ fonkal say waajur ñoo bind asamaan ñoo bind asamaan ñoo bind suuf si ñoo bind suuf si ñoo bind géej gi ñoo bind géej gi ñoo bind dunya uxra ñoo bind uxra Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah yow yàlla yaay buur. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah yow yàlla yaay buur. Allah Allah Allah Allah Allah bir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 كاسبين أم حسب الذين يقملون سيئات أن يسبقنا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد من نفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا جل لن نطهرنهم في السالين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أسر بالله جعل فتنة الناس كمسائل إن جاء نصر من ربك ليقولون إن صدق الله سبحانه رسول صلى الله عليه وسلم yonent yàlla bu tedd bi wax ne ittani bu na moytandiku sab xamu bi xaati juróom yi fa xaaru mu wax ko yaa rasulullahi lan la yonent bi wa maa xam ne juróom-ñaar yéen ak mu wax ko asirku billahi wakkaale yàlla wa sixru njabar wa xat nafsin ray bakkan lutti ya nga xam ne xaramaxaa araamal na leen allah ko yàlla e laaɓel haq si dëgg wa akkulu riba ak lekk riba wa akkulu maale yarte ak lekk allah lu jirim wattawale daw yowma safi biso hare ma billardi huwa العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول عصر ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وزونوا من الله وآتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وأصبح في قلوبهم رعبا يهربون بيوتهم الأيدي وأيدي المؤمنون اقتبروا يا أولي الأبصير ولولا أن كتب الله عليهم كلا عذابهم في الدنيا ولهم في الآخرة أصحاب النار ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله من ساق الله إن الله سدير النقاب ما تقدم من لنا أو تركت ما هاي ما لو سلي وبإذن الله وليصي الفاسين ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت يا لبتاد بدمان يا غلام يا وعلي بلي سم الله تدريال وكل غيلك lekk ma yami ga sa oh, loxo ndijoor hokkul nga lekk ma yami ga si maliki naas ilaahi naas min sari waswaasi xannaas allati wiswis min suduuri naas min aljannati walnaas wal-'uus bi rabbil falaq min sari ma xalaqa ومن سار غاسق إسا وقب ومن سار النفاسات في الوقر ومن سار غاسق إسا وقب ومن سار النفاسات في الوقر والعاصب بالفلق صدق الله العظيم دعوا نعم، المتي حديث قال رسول الله xaaral rasulullahi yéen ci yàlla bi teel dafa wax ne yéen tërison na ngeen met min na laa si ngeen ñi bisari sann ñaan yot rawaawul san hadis in maada in maada ismu abi Muhammadu Diouf ismu ummi soxna jaara seen askan fii Tuuba amul a'uuzu billahi mina saytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim nuun والنون والقلم وما يسترون ما أنت من نحمة ربك بمجنون وإن لك أجرا خيرا ممنون وإنك على علوع حسيم فذا تبصرون ويبصرون بعيكم المفتون إن ربك هو أحلم بمن دل عن سبيله وهو أحلم بمعتد عظيم فلا تطع كل علاف مهين هماز مسائب أميم مناع للغير المعتد عظيم عتول بعد السالكس أحسن من أن كان السمال وبنينا إذا تتلى عليه آياتنا النهى لأساتير الأولين سانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي بتدبان أبعاد الرجال غورجنا بنزيغوني إلى الله سي الله على العاصمي غورج بغهلو والأمهات فضيلة سوى الخلماء أيها الضيوف الكرام نعيكم بتحية إسلامية hailan lakum assalamu alaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh ismi fat fal ismu abi serigne fal ismu ummi cubba fal a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ahasiban an-nasu an yutraku an yaqulu amana وهم لا يفتنون ولقد فتنا لسين عليهم فلا يهلمن الله الذين صدقوا ولا يهلمن الكاسبين أم حسب الذين يحملون سيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله ألاتي وهو السميع العليم ومن جاهد وينبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في صالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوتي في الله جعل فتنة الناس كهوسا بالله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعذاب مشكور بارك الله يا أيها الصبيان أي لا ñi la سهلوا hanil huda singjub wabil wa bil xulubi na ngeen bil hafsi si mokal wa tilaawa ak jang alquran wattani bu na ngeen na ngeen majalis sahawa si togay way taxeri wala si mu na ngeen taqoo man laa yasaalu di dañ habida di jamu li rabbihi ñel boromam ilahu dahu jëm si njub haydan mu ko fakuluman kep ku ne badara fakuluman képp ku ne baadara gaawantu nga waxta sixari sa jamonoy ndaw waman ta waman toxda istaraha nga noppali ko waxtal kibari sa jamonoy mag waman ta daaraka képp ko dabaatal la sii ba nga xam ne xad faata faan na ko mina lahaa ci neen wa mu gaatu aw xaata aw aw xaata ci waxtu wi bi taw batin mu tuub wa nusuhi sellal wa iqbaali mu jubla ilaa ilaahi jëm sa yàlla faasa texe na bil kamaali ci mat haakum jàpp leen nasihatin sama laay biir su ngeen ko defee fatal ba hu di ngeen bénéfice u dunya si àdduna wa uxra ak allah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 ما أوهي ما كذب فؤاد مرة أفتمرونه على ما جرى وقدر غنطة أخرى عند سدرة منتقى عندك جنة موي إذ يغزى سدرة ما يغزى ما ذغى البدر وما تقي لقدر من الآيات ربع كبرى أفرأيتم اللات وعنزى ومناة ثالثة أخرى ألكم سكر ولغول تلك إشا قسمة ديزى من غير إلى أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان صدق الله العظيم ربي قرار جونس أبي قرار رضي الله عنه يا لك يا لغرم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لبتي دبنا لا زديد بيب جامبار بسرعة سجامت لما زديد لك جامبا لزي ما كان عنه يملك نفسه بوبام عند هذا سامي مريه إفاتو تدبر قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أنا لما تودون في خافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا السنين المقبلات منك أحرصت نسيبا من علوم النافعات أنت للسمآن ورد والطريق للنجاة أنت حققت مرامي أنت جملت صفاتي أنت للطلاب حون وهدى للطالبات منك آباء الكرام منك خير الأمهات دمت للناس جميعا مذعلا في الظلمات تطرد الجهل وتبنى لعلى المكرمات وبركاته بوكي جولي دي فيتيو بوكي طالبي سيرن محمد الامين موم سيرن ابراهيم امباكي نيامر مي لين دي نويو كين كو نيك سي تور اك سي سانت دي رافتلو سين تي واي ci bàyyi ngeen bàyyi seen yitte ñëw ànd Ibra liggéey bii nga xam ne sumb na ko ngir jàppale ko ci nee mi ngi leen di sargal te di leen ndokkeel di nuyu ñëpp Ibrahima sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu di nuyu sëñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy chef de quartier bi ak mbooleem magi murid yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi nee na bàyyiwul kenn mi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la wax ne yow Ibra euh, dellusiwaat na fii tey ni mu ko baaxoo daan defe di ànd ak yow liggéey bii nga xam ne yàlla daa dogal moom mii la waroon ndax nee na mi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di leen jottali nuyoo waajuram Serigne Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo ko fi bàyyi. ngir mu and ak yeen lepp lu nga xamne lu neex yalla la te neex yoonte bi neex Serigne Touba guddi ak bëccëg nee na mi koy and ak yeen di wax ne taxaway yi nga xamne ibrahim mi ngi koy taxaw fi mom mi la waron loolu tax na sa bo xamee bis bi ñëw na fu ko mënon na fek wala lepp lo ni jappon nako dana ko bayyi lu gatt dana ñëw feñal yeneem ko wan ko cofeelam wan ko kontaante jim am ci bis bi ndax dafa wax ne dara munta baax du jag te xale jagut coono bu rëy ngeen àndal yàgg si la mii ak ñi ngeen àndal di ko jànkonte ci xale yi nee na mi ngi ci teg bëtam mi ngi koy gis tey it mi ngi leen di jaajëfal di leen masawo te xam ne liggéey bu rëy la man ngeen ci àddina am ci àllaaxira nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ba ngeen tàmbalee ba léegi nee na yokkatu leen bayiwu leen tey noonu yi la ndax nee na su ngeen ko defee maanaam dafa mel ni kenn ku nekk suñu borom daa am lu mu dogal ci yow soo defee responsabilité nag loolu nag kon leneen la kon nag nee na mi ngi leen sant di leen gërëm te xam ne jël ngeen seen seen i engagement mi ngi seen ginnaaw ànd ko yéen mi ngi leen di sant di leen gërëm nee na fi ngeen teg seen tànk foofu la rek nee na mi ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ak yokkute ku fi ñëw te indi aaju yàlla na ko yàlla faj képp ku fi indi soxla yàlla na ko suñu borom faj ku fi ànd ak rag yàlla na ko suñu borom saafara xolam sedd na nee na nii rek la xolam sedd na mi ngi leen di ñaanal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lii la waxoon ne daal ma jàllale leen ko bu fekkente nag am na lu ci da nga ci man mii la waaye wax na ko kaddu yu rafet yoo xam ni ànd nag euh, cofeel gu mag ak xol bu sedd guy goo xam ne gi loolu moo fi indi nee na jërë ngeen bihil mi wa wajhin bat sa saa bérali cant ki ngërëm saa xolo fees ma wax te sant buur yàlla mi tax ma jàng fii ak ñii ma may ngëneel yu rëy yi tey ma am daara ji moo tee man ma réer moo dee ma doon ku ñàkk yar moo tax ma ràññee man ne jër moo def si man li ma am xàmmewu ak liif gu dog moo tax ma doon ku ñépp wekk jàngal ma yar ma jox ma njëg bu seer seer si moroom ustaas yu baax te am njariñ te farlu lool boole xarañ yor xor yu wuute ak këriñ seen liggéeye mooy ma ndam yàlla na buur fayal ma leen te yokku daara ji yeneen ñépp di jàng doori laan bay wattu lakk fi ulum fii laa dalee man quraan dale fi naa si wàjj laan lu ma mësul foog ne ma mësul foog ne woon xaj na si dund laa fi am ñu daal di may dalal xadiis waxi yonen la muy lu diis fiq wa dal na diis matière yu wuute laa fi am français fii laa ko xame làkku arab fii la ame yeneeni mbir yu ma jële fii yépp doon ay xeeti xam daara ji moo def si man loolu te na yaay te waa kër nijaay it tëna leen mooy yar bi ak lii ma fi am papa si lay ku mat sëriñ wallaahi xam nañ sa njariñ sa ne sa xel na dal ne fàttewuñu sonn nga lool ngir rek ñu xam Ibrahima Tine fondateur la bu xarañ te néewi doot te lii ma wax ñëpp la wóor te lii ma wax ñëpp la wóor yitteem du woon lu doon ñu xam kon siggi leen am ngeen ndam ndax sooyu leen li ñu fi am fuñ mën a dem dañuy sagoo ngir li ñu xam man nekk de fii laay ji ma yem saaxo tax ma gëlëm man nekk de fii laay ji ma yem saaxo la tax ma gërëm Saxal Bees ku fax ma gërëm te yàlla fay suñ sang yi te yokk seen sutura si te jox leen satoy si ngir ñoo xam maa ngi sant sëñ Fallou Diop. salaamu de lay wax da yéen ñi fii ngeen ne pat wala sax ko di wax far di ab lafañ wala pat. illa nag la ñu may wax de waaye nag du loolu mukk léegi sax ku ma koy wax ma nan pat ni ab ëkk ibrahima de sax day sama wuturit nee ma jakk yëkkatay ba ca kaw waaye nag bu lu ma xaañ ci ëkk teg ci nag di elef dégg daaj dalal ku may dëkk jël defe nañu may maytu ndax damay rëkk di mbëkk moo taxit ba ma jaar gaa yi naan daay gi yaa ko lakk may xalit ku fi ñëw naa damay tëkk naa ko lakk fii ma aw ku fi aw ban bi day wallaay di nga ji taq kon dëkk xiima aw ku fi aw ban bi day wallaay di nga ci takk gin ne fat di la tëx kon dëppal ban bi da lay takk léegi nag li ci des mais ma ñëw di wax fi sab dëkk mooy dëkkit bi ci man mën a ummal xuraa di sab dëkk yow mi day ku fi xam maa nga yàgg fit newal tacci moo ngu naan la di nekkoon di àll yit bu naan tacci waaye nag suñu góor gaay di mat di góor ñoo ko bëgg kooku mooy suñu xol sayxu saalihu maa ko bëgg mooy ki ñëw di ki soppi dingante war suñu dëkk moo waral ba ma ngeen ngi dëkk xiiwal ak i taw feex dañoo ko yer dafay ëpp ceebu jën yaasa maafe daama daa daxin bëpp jàng tam dafi am teg ci ab jërit ñëwal yëddu ay ku mas di fi am day ñëwaat dëgër sama mbind teg ci intelligent foo dem it jëm ñu lay takk ay xarit ña si des reefe nag nga doon de seen rakk kay ma wax la nga xam maalam tax la mi da yow mukk muy mu déj bi fi mar gaa yi kon na ñëpp jóg sukk may xayil di sax mooy xalil di saxiim yàlla moo ko teg ci bii ëtt muy xakim di imam gaa yi saw ñëpp walam xëtt boo xamul de xalil kay ma wax turam bul ma sikk ibrahima jetin mooy xalil sa way xam ko rek waaye nag li fi am bay gasit de pax ñu koy sëkk koy ndawit di ko baax gaa yi sekkuwul da lay sikk kon mu ñal te nga xam képp kuy imam nan la mambu ndaxte yaay suñu géet waa ji tàng tam ci lay sëmb teg si nag sama waay naa de Cheikh Balla si la alxuraan ak koo man de waa ji léegi am fulla alimun war yoon yaa di sun idal koo ne jakk ba ca kaw yàlla ni ko ay dal di naa taxaw te yem foofu nag doy na yem na sëkk jaajëfal ni fi ñekkoon di bàyyi xel yem na sëkk naa ñi ngi ñaan aafi yak salaam bu dul dëkk teg ci yaatu ba tas fépp fu ab jullit daal di dëkk rabbana ñi ngi ñaan aafi yak salaam bu dul dëkk teg ci yaatu ba Je suis chargé de vous lire la définition de réseau social. Qu'est-ce qu'un réseau social Les réseaux sociaux sur Internet sont des applications ayant comme objectif de relier des amis, des connaissances ou des associés. Les réseaux sociaux existaient bien avant Internet. Un réseau social n'est en effet rien d'autre qu'un groupe de personnes eh? ou d'organisations reliées entre elles par les échanges sociaux qu'elles entretiennent. Un club de tricot ou de pétanque en était un avant la lettre. Aujourd'hui, le, réseau que constitue Internet a démultiplié ses réseaux et interactions et les a dotés d'une toute nouvelle puissance. Avec des taux de connexion qui ne cessent de grimper, des technologies, des technologies collaboratives qui se banalisent et ont désir certain d'investir le sens du relationnel. Internet met en place de nouveaux réseaux sociaux plus larges, plus vastes plus ludique, mais aussi moins facilement identifiable que ceux auxquels la génération était habituée. En France, les réseaux sociaux le plus utilisés sont Facebook reste en tête avec 24,2 millions d'utilisateurs, dont 12,1 millions quotidiens. Twitter poursuit son expansion avec 5,6 millions d'utilisateurs. YouTube affiche milliards d'utilisateurs activement sur. LinkedIn confirme son dépassement de Viado. 4,3 millions d'utilisateurs contre 3,6 pour Viado. Similaire et pourtant différent, les sites communautaires proposent aussi la mise en relation d'internautes autour d'intérêts communs. En règle générale, les fonctionnalités de réseau social sont créer un profil, inviter, chercher des amis, partager des fichiers, photos, vidéos, alimenter le contenu en postant des commentaires des statuts, etc. Les réseaux présentent des orientations plus ou moins personnelles ou professionnelles, c'est-à-dire que l'objectif de relier peut être de retrouver des amis, de partager des outils avec eux, photos, messages, commentaires, applications ludique. Pour tisser un réseau professionnel, rencontrer des partenaires potentiels, trouver un nouvel emploi, trouver des collaborateurs, annoncer des événements ou des activités professionnelles. Les réseaux le plus connus, est évidemment Facebook.